mu décidé loolu mooy li nga xam ne mooy li am aw ma ci xarab aw ma ci naxaar dama nekkoon amoon métier di liggéey yàlla teral ma ci ma yaakaar ne manoon naa la ma doon def ba yàlla yóbbu ma feneen ma def loolu ba yàlla jaaxal ko tey ma sant ko gërëm ko gërëm ki nga xam ne itam moo ma ko joxoon ma téel ko ko yow bi nga toogee jàngat mbir yi lan moo war a mën a waral ñu teg sa ndombal tànk dangaa matalewul liggéey bu ñu la sant wala boog euh, wàllum politique la xam nga kuy xalaat loolu am lu la desee jàng ci àddina boo weesoo juróom benn fukki at dara dal la nga caay seet loxo keneen ku mooy suñ borom bi yaa ngay ñanki yaa ngay weddi la nga xam ne ca nga ne ca nga dugg ca nga ne xalaatu ma ne man ñàkk suma liggéey moo tax président bu nekk ci àddina muy fii di feneen day dox ba ca kanam seet la nga xam ne mooy gouvernement am seet na mën a jokkalee wàññi mbala yokk pour mën a dem fa nga xam ne jéego yooyu lay def pour yegg fa mu bëgg a loolee mooy wax ji waaye wax ji nag du man matalu ma moom matal xëy na sax nga matal yaakaar ne matal nga waaye ka nga xam ne nag moom la yàlla jox cër bu dee matal nga naan matal loo mbala nii laa bëgg a defee kookee moo xam la nga xam ne moo tax nga jóge fa. na woon kaddu yi Abdou Latif Coulibaly yi daaw doon kon. Created with free version for non-commercial use.